deuxième Portugal, euh, équipe polonaise, troisième division, gardien de but là. Euh, avant moi, Parmo, par mot, Sénégal jouait dans petite catégorie. Et, mais celui qui vous connaît, gueule fait j'ai un fou Benjamin, minime, pour la presque pour la devait

presque de naa fa tamit ñaari trophée de championnat C'est sama situation léegi ça va magi. maa ngi si benn club troisième division Portugal maa ngi maa ngi entraîné bu baax et xam naa ñëpp jàmm et aussi ñëpp bëgg nañ ma maa ngi si jàmm daal. waaw objectif moom pour saison bi moom mooy terminer ko en beauté rek parce que quinze bi ñooy sixième ci classement bi mais dañu war a jouer pour play off parce que euh, quatre points moo ñu manqué pour ñu dem play bi mais année bi moom bëgg naa ñu dem play off pour mën a subir monter pour euh, année prochaine ñu mën a nekk seconde division deuxième division Euh, jour bu nekk euh, da ngay ñaan yalla jouer pour ce équipes nationales même man ba ma nekkee xale bi léegi lool lay rêvé pour jouer seen équipe nationale jël foofu ay trophée même 2015 ñëwoon naa foofu si U20 mais après dafa tombé loon may war jël ci waat préparation lool motax xawma ko woon yàggu non mais maa ngi pass bu baax baax te bëgg naa fa ñëw wane sama bopp quoi. waaw man sama sama bu Buffon la parce que man entraîneur bu ma yoroon moom moo nekkoon entraîneur Buffon ba Buffon amee 17 ans moom daf may wax Buffon bu mu amee woon 17 ans comme man la mel quoi comme lu mu gaawe woon buy plongé genre yooyu moo tax Buffon man mu bëgg quoi Buffon nekk sama idole